di ak tuddi xërë na lay tàmbal a nafku badal kaddi njëriñ mën ci ginnaaw coono waaye xam Tuubaa fa mu nekk yoon wii sëriñ Tuubaa tax laa jóg te liggéey jafe na fii liggéey mën naa rax waaye bii liggéey raxut Ahmadou Basir mi nga xam ne ma koy sëñ Mountakha digg ko loolu mooy dara rax ko sëñ Basir diggante ma sëñ Tuubaa boo jëlee rek la sëñ Mountakha Cheikh Basir Cheikh Basir mi diggante ma sëñ Tuubaa sëñ Abdou Khadim kon liggéey bi set na wicc wicc ku fi dikk li nga bëgg da ko man man man a koor moom jël sax di wax yeneen taalib bi lu ñu mën a bëgg bu leen taxee jóg lu mu bari bari bari sëñ Tuubaa def ko du ko yëg sax fii xel dal na bismillah xol sedd na waxee rek ku fi dikk nga defal loolu loolu moo tax ma teew ci tool yi sëñ Basiir di sama xarit daa mee sama doom la ñoo xam ne ñu dem kere baa ko waxee bëgg a dem daf ma ne ñaati passeport la bëgg ma ne ma loo bëgg ñu defal ma moom waxtul sax naa ñëw da leen boo yebalee rek ay nit doy na mën a ko may ñëw jikki na ko bett waaye damaa xam ne Sëñ Tuubaa kese la te lu mën a saafara Sëñ Tuubaa ci gën a gaaw kon nag nan sant yàlla samay doom laa àndal ak kër juróom benn oto yi la nga bokkut ak camion te ñëpp del Sëñ rek waaye nag koo xam ne sa maam daa joxoon bakkan lu coow li sëñ Mor Mbaye si ma lu coow li bari bari bari sa maam seen maam yi jàmbar ndax bakkan ni mu neex nga nangu ñu rey la ngir bokk te booba kat démb fi nekkoon sëñ Tuubaa fi din démb tey fi ne waaye sëñ Tuubaa moom démb fi nekkoon nag booba nguur neexoon na lool sëñ Thierno daa wax ne su ñu xamee sëñ Tuubaa dëgg dëgg du ci sant loo sant buso du sant jaan du sant jaxate jant si seen. du mbàkke mhm. nee na ñooñu pare woon nañ. Mhm. waaye ñu bon nga xam ne mosoo def dara lu baax ci am. di reyanteeg naananteeg sàngaram li di ko def defar ko ba ba ba ba tàllam sama wax ñu naan la. ñun ñii la ci la xamee sëñ oh, loolu loolu mooy dëgg ci loolu dox la sëñ bi wàcc na moom defal lu ne gërëm lu ne lu am na kon nag maa ngi ñaan man sama wàllu bopp képp bii léegi fi ma toog mën na maa dugg Sëriñ Tuubaa rek aju ñu faj. alhamdulilah daal sëñ alhamdulilah daal sëñ bi wallaay. ndeysaan jërëjëf yàlla na ko def jërëjëf suñu xol seen na jërëjëf suñu Fallou loolu nga wax lu yomba tontu la waajtaay yi moom ban ca nekkee lépp lu waajtaayu kuy dem ci liggéey di def def nañ ko lépp koo xam lépp loo xam ne tam ku ko yor ci ab tool mën a liggéey loolu it am nañ ko kon jafe-jafe dafa mel ni moom bu dee ci tool yi amul jafe-jafe ndax lépp lu ñu bëgg rek mu ngi dox ni ñu ko bëgg rek mi ngi doxee noonu nit ñi xiifuñu maruñu lépp ngi doy su nga boo demee mbana yaa ngi ne ci bitima taaj séddal naa ba desal ay mbana ci sama tey maa ngi taal reer kon day mel ni lépp am fi ñu toll moom amul lu sooxeeku fi toll xanaa daal li nekk daal fas yéene liggéey gis nga bi nga ñëw toll ne liggéey bi toll nii bu subaa lan xëyaat fas yéene nekkaat ci waay bi daal ak bëggam ni mu ko bëggee fas nañ yéene bala nu fay jógee ko am loolu daal mooy lu mbooloo mi nu ñu wuysee mbooloo mi ay xaaji xaaj lañ def ndax liggéey bi bi ko sëñ bi santaane jëwriñ sëñ sëñ Ismaïla euh, Diouf ca la yónnee woon ala jili mi moo ca demoon dem na ca ñaari yoon ànd nañ ca ak moom ñaari yoon kon day mel ni sëñ bi sëñ Ismaïla ñoroon na ko ci li mu doon deflu ba mu ko waxee itam sëñ Ismaïla nangu na ko bu wër ak nangu wu leer nañ itam ak ànd ko pas waaye sëñ bi wane ne da cee war a dolliwaat nag nit ñoo xam ne dañoo war a ñëw jàppale sëñ Ismaïla ci liggéey bi day mel ni sëñ Ismaïla moom mooy jëriñu tool bi fi mu waaye nag teewut nag mu santaat ko nag ay mbooloo yu bokkut ndax mbooloo yi waa kër sëñ Bajuru ñëw nañ fi waa Kéré Mbaye ñëw nañ fi waa kër sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Modou Ablaye Fall Ndar ñëw nañ fi waa kër sëñ Moustapha Bachirou ci njiitul sëñ Modou Mbacké moom sëñ Moustapha ci Kaffrine ñëw nañ fi waa kër sëñ Mountakha ci njiitul sëñ Cheikh Bali moom sëñ Mountakha ñëw nañ fi ñooñu nag mu mu boole ci Missirah ak Mbabane waa Saloum it ñi ngi ñëw dañoo accès gut waaye seen oto yaa ngi ci yoon wi di si mi nga xam ne mooy taawub sëñ Mahamadan si ak ñam ko sëqal ca Saalum ñoomit it ña nga ànd ci yoon wa di ñëw loolu nag mooy ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ yoo xam ne ñoom dañoo fekk si sëñ Ismaïla ci liggéey bi boole koog nag daayira yi nga xam ne dañoo soqi ci sëñ Basiru te nekk tubaa di ay waa këram ñoomit mbooloo mooma new ma ñëpp ñoo waaye ñu ci baree bari ànd nañu ñun France ci dëkk bi ma ma gis leen kon day mel ni sëñ bi li mu bëgg ci liggéey bi ni mu ko bëggee woon mooy noonu la bëggoon bëggoon sëñ Ismaïla la ko sant waaye nag bokk yi nga xam ne dañuy ay seex te ni ci biir réew mi te buñ déggee ab liggéeyam bëgg caa barkeelu loolu moo waraloon mu yónnee ci ñoom ay ndaw ngir ñu ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi ñoo itam noonu ma la ko waxee rek dal yi nga ni ñu wëree ni ñu wëree tool bi kenn ku ne dal nga fenn ba gis nga xëyum tey mi li muy naaj naaj gis nga ni mel boo ci doon daw nii bala ngaa ko fam dana dana dana sori lool fas nañ yéene nag bu subaa ni nu wàccee nii bu ñu xëyee suba ma liggéey bi boo waxtu yi ngeen fekkaat li ñuy wàccaat bu soobee yàlla jàpp nañ ne daal ni mu ko bëggee moom dana ko amee noonu alors la bëgg jàpp ko ne liggéey bi dana ah, loolu de moom li tax mu naqaree wax niñ tàmbalee ni su fekkee ne bàyyiwuñ ko dana gaaw lool nit na liggéey nag gannaaw moom néew ñu la fii lay yem néew ñu la kañ ngay wàcc dam leen liggéey rek ngeen di wax ndax mën nañoo liggéey bu neexee borom sax suba mu wàccanu mën na fay def fukki fan mu wàccanu waaye nag fukki fan yi ak benn fan bi moo yem ci nun daal saa bu nu xëyee danañ xëy ba wàcc jot bu gont jotee danañ gont ba wàcc jot bu tëdd jotee ñëw tëdd bu nu xëyee nekkaat yi loolu daal lañ fas yéene Mbàkke moom Serigne Modou Balla Dior jëwriñu moom Mamadou Bassir ci liggéey bi Serigne bi yow la sëñ bi doon coordonné loo liggéey bi woo nga mbooloo mi mbooloo mi wus la ñëwal nga sa bopp ci liggéey bi ana yeen kàddu ngay yëkkati waaw euh, asalaamaaleykum sëñ Fallou euh, ñëw nañu comme ni nga ko waxee euh, wër nañu liggéey bi wër nañu tool bi wër nañu itam jëwriñ yi kenn ku ne dem nañ ba fa yow gis na nga toogee jottali la it kàddu canti sëriñ bi muy loo xam ne man ci sama bopp am naa ci mbett ndax bi ma ñëwee ni ma gisee dal yi te liggéeyaguñ tey dañoo wax ne dañoo doon defar dal yi waaye boo xoolee li ñu liggéey hectares yi bari na bari waaye goo xam ne kon dafa mel ni liggéey bi duñ fi yàgg loolu nag sëriñ bi daf ma ne woon ma ñëw doon ay bëtam xoolal ko li fi nekk su ma fi jógee balaa muy fatu naa ko rendre compte wax ko li ma gis waaye man li ma gis Sëñ Fallu dal na sama xel waaw maanaam mbooloo mi ñëw na li ci ëpp solo nag mooy ñi ñëw ñooy ñan maanaam ay ay ay ay ay cheikh yi yoo xamante ni bii kenn ku ci nekk Sëriñ Tuubaa dafa am lu mu defal sa maam lu la doy sëkk waaye ñoom ñëpp futtiku nag ànd ñëw ànd ak ñun liggéey bi waaw loola xam nga boo ci cité xam nga sëñ laay Layme nga xam ne eh, doy na sëkk ak sëñ Diouf waaw ndemut sëñ Muntaxaa gi waaw donc doomi mun Muntaxaa bi ma ñëwee fi laa ko fekk mu nekk fi ma dem naa visité ji waa dalu sëñ la muy ñoo xam ne ñoom it ndeysaan euh, pêcheur bi ñu ci àndal man sama bopp dama cee amaat sax geneen dafa ma jaaxal ndax pëstéef bi ñu am ngir liggéeyal sëñ sëñ Fàllu loolu euh, man ci sama bopp dama daf dama cee takkaat sama laxasaay waaw wallaahi lancé ndax damaa gis ne euh, lii sëñ Tuubaa rek ko mën a am waaw sa moroomu gor mooy yóbbu ci àll ba fayoo ko mu toogal la fa di la liggéeyal te bëgg ci liggéey bu muy liggéey loolu sëñ bi rek ko mën am waaw sëñ bi rek ko mën am nu ci santaat nag yàlla di sant sëriñ bi ci bii mu dugalee ci liggéey bi ndax bëgg noo dimbali la ndax su euh, sunu ko defloo wutoon nu defi leneen waaye defloo gi kon bëgg dimbali laa ko tuddee bëgg dimbali googu nag noo ngi ñaan dimbal loolu yàlla na ci murit yëpp xaj waaw ci barkeb sëriñ Tuubaa waaw noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gis nañ seen taxawaay bi liggéey bi tàmbalee ba léegi amu leen nopp